bismillaahi rahmaani rahiim raditu anil mawla taxalal la si rabba fa adi wa axnaani wa akrim bi rabba asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñu dellusiwaat ci seen émission bi ñu tudde Madinatu Ilmi ñu leen koy amale ci seen 24 24 actu Euh, ñuy waxtaanee lépp loo xamante ni lu aju ci ak actualité ak lu aju ci diine sax susu waaye yenn saa yi ñu xool lu itteel loo xam ne buñ ci waxee xañ na mu am njariñ moo tax ñu ci wax ñu dikkaat tey nag àndaat ak yéen ci beneen numéro boo xam ne ñu ngi ko jëmale ci doomu aadama yi nga xam ne yàlla def noo bind te binduñu ci ak insaani insaani ya nag mooy nit ki day wane ne matul matul ñàkk mat googu nag moo tax yàlla di ko def muy tooñ muy tooñ tooñ nag yàlla da ko bañ ci boppam araamal ko ci boppam moo tax mu bañ ko ci sunu diggante wàllu tooñ nag lan bëgg a waxtaane tooñ lan mooy tooñ ak tooñ yan musiba moo ci mën a fekk nit ñi ak yàlla ni mu ko aayee xam ngeen ne sunu borom dafa aaye ku ko tooñ ba muy dénk euh, Luqmaan ak doom ja Luqmaan di ko dénk ba bàyyi ba di dénk doomam Luqmaan dafa na ko bul tooñ ndax tooñ bul tooñ yàlla bul tooñ yàlla mooy laa tusrik billahi inna sirka la sulmun asim nee na ko bokkaale de ak tooñ la waaye tooñ gu màgg màgg màgg la tooñ gu rëy maanaam jaamu yàlla yàlla bind la wërsëgël la may la ak wér amoon dara loo koy fay nga jël ne dangay ngay jaamu keneen ku yàlla loolu de ak tooñ la boo tàllalee sa loxo di ñaan ngay ñaan keneen ku dut yàlla loolu tooñ yàlla la boo ñàkkee wala boo wéradee ngay woo keneen ngir mu faj la ku yàlla loolu tooñ yàlla la tooñ yàlla nag mën paase yàlla bind la ba noppi ngay jaamu keneen boroom xam-xam yi doon wax ne ku bëgg ñu jaamu la bindal ni yàlla ku bind boo santaanee ñu def ko ginnaaw yàlla moo bind nag kon yàlla lan war a jaamu tooñ yàlla nag yàlla dina ko xaare lu yàgg yenn saay yenn saay yàlla du ko xaare ca diggante ba yàlla boo ko tooñee moom ci boppam mën na koo xaare lu yàgg sax waaye boo tooñee nit sa moromam nit yenn saay yàlla fayul ko ci saase ci jamono bu yàggul dara yàlla nag def koo bañ moo tax nit ki nay moytu tooñ yàlla tooñ yàlla nag moom dafa màgg lool moom bàkkaar bu rëy rëy rëy mooy jaamu leneen lu dul yàlla loolu moom ku ko tuubut ba dee sawara rek mooy sag pay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit ñi nga xam ne moom la yàlla yónni woon dafa aaye tooñ ba noppi mu wax ca lu bare bare bari lu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ittaqi daxwatal masluma innaha laysa baynaha wa bayna llaahu ijaabun nee na yéen kat dee leen moytu ñaan kunu ku tooñ maanaam ku nu tooñ koo xam ne da dikk fekk ko ëpp ko doole tooñ ko waa jooju toog ba guddi mu julli ñaari rakkaam toog tàllal yàlla ay loxoom ne ko diw sàngam mi nga xam ne tey danoo daf maa yoreel sama xaalis ba noppi fayuma ko yóbbuma pëlis tëjlu ma waa ji nga xam ne dafa dikk fekk sama kër mu ne moom moom kër gi waa jooju de laa bëgg tey tàllal samay loxo yàlla nga fayul ma ci waa jooju yàlla nee na diggante boobu yonent bi salaa salaam nee na waajooju nga xam ne dafa toog tàllal loxo yàlla nee na yàlla du delloo ñaanam xam ngeen ne doomu aadama yi ju nekk dafa am kiiraay lu dox digganteem ak sunu borom waaye kin tooñ moom kiiraayam doxatul diggante sunu borom da ko muril kiiraay yépp ne ko sama diggante yow waxal loo ci bëgg rek ma defal la ko boo gisee nit ki yenn saay mu yor alal yenn saay alal ji yàqu ñu lakk wala nga gis waa yor oto yenn saay mu dawal accidenté wala nga gis waa joo xamante ni lu mu lijjanti loola lëj la ko waral ak nit la yore kooka nag moo toog ba benn bis mu janloog yàlla ne ko yàlla diw sàngam mi nga xam ne dafa ma ëpp doole tëj ma ci kaso bi diw sàngam mi nga xam ne sama bor bi ma yoreloon lànk na ne duma ko fay kooku laa bëgg nga jëflanteeg moom sama digganteeg moom yàlla ne na ko bëggee mu ne ko dama bëgg alalam jépp yàqu waa jooja buy tàllal loxoom balaa wàccee loxoom yàlla nangu ñaanam googa amaana sax mën naa dem ba ñaan yàlla ne ko kooku dama bëgg nga jële ko ci kaw suuf ndax loraanga ji may lor te yëg naa ne du man dong la lor mi ngi lor ay neneen boobaa yàlla daal di jël bakkanam ci saase moo tax nit ki nay moytu tooñ nit tooñ nag dafa sew ay àq yu bare bare bare la ngay jël àq nit wala nit nga liggéeyloo ko ba noppi te fayoo ko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ngeen bañee tooñ wala ngeen jël àq nit ki lay liggéeyal balaa aw ñaqama fenn na nga ko fay alalam nit ñi nag yenn saa ñu fay la waaye mën nañ laa bañ a fay ci jamono bi la war a fayee nit boo ko yoree la àq da ko ko war a jox ci waxtoom ndax mbir mu nekk daa am waxtu xam ngeen ne julli sax suñu borom dane inna salaata tanha anil faxsaahi wal munkar bokkut ak aaya boobu inna kaana salaatan alal muminin kitaaban mawxoota xam nga loolu ci waxtu la waaye loolu mooy tooñ goo xamante ni yàlla dafa bëgg lépp looy def na nga ko def ci waxtu wi ngeen dër nit yoreel nga ko bor nga ne ko gaaw dina la ko jox wala altine bu altine baa jox ko borom waaye bul nekk ba ca dimanche ja wala ba ca talaata ja nga soog ko boo ko joxee talaata fay nga ko waaye yàq jël nga ci àqam tooñ nga ko am na loo jël ci àqam loolu nag ñetti sa rek la ñuy nettali ci tooñ yi nga xam ne boo gisee tooñ yàlla bañ ko ñetti xissa yi nga xam ne la ñuy natt rek ci jataay bi sëñ Tuubaa ci boppam de dafa wax ne man de ba ma ñamee yàlla ñu tooñ ma ma jéggale yàlla fay ma fayul ma ci laa bàyyi fayu ci tooñ kon ku nekk xam na ne kon sëñ Tuubaa ñun ñun ñii murit moom tooñ moom warunu tooñ kenn kenn kenn warunu kii nee na ab xissa bu gàtt la nee na dama nekkoon di sëy jigéen joo xam day sëy jigéen bu ju sëy yàlla dem ba jigéen jooja dafa tas ci ab sëyam bi mu tasee ci sëy bi yàlla dogal kër magam rek la am muy kër càmmañam mu dem kër càmmañam loolu nekk fa nee na bi ma demee nekk sama kër càmmiñ loolu sama càmmiñ loolu ak samay doom xatal ma lool ci kër gi nee na di ma xatal waxtu wu nekk mu ngi may coow waxtu wu nekk mi ngi àgg ci man di ma ba àgg na benn bis mu xëy suba teel daf ma dóor dóor yu metti bi ma dóoree ba ma tëdd jaaxaan may jooy sama doom yépp wër ma di jooy nee na mu wéq ma wéq wu metti daldi jóg daa génn kër gi taal otoom di dem nee na bi mu demee di taal otoom di dem dafa daw tuuti rek benn oto traversé ko rek mu accidenté nee na bi mu accidenté tànk bi ñu daal di koy jël yóbbu hôpital bi ñu ko yóbbu hôpital nee na bi ñu demee rek docteur yi xool ko ne ko kii tànk bi dañ koy dagg nee na demee docteur yi daal di dagg tànk bi waa jooju neena ma xool ne tànk bii de laa doon wéqi ndaw si dóor ko ba wéq ko ndekete bi muy laata mat 30 minutes wala waxtu ci laa def accident ñu dagg tànk boobu kon xam ngeen ne googu tooñ yàlla da ko fayu ci saasa loolu xale yi di wax naa yàlla ji léegi xañ na mën naa koo waxee noonu waaye du sama habitude yàlla ji léegi yàlla xale bu góor la day defante ku ko tooñ mu defanteeg yow am na ñu ca teg yu bari waaye yàlla paase na lool sax waaye yàlla day fayonte keneen kii ci des moom itamit nee na dama dikk fekk ak silmaxa gumba kuy yalwaan nee na ma fekk ko ci wetu tëli bi nee na muy tàllal bantam di yar ma dikk fil bant bi ba waa ji daanu bi mu daanoo ma reeree yu baree bari nee na ñi nekkoon ci wet gi sax ñi ngi reetaan ñoom it ni ma def gumba gi nee na ñuy ree reeree yu métti gumba ga daal di jóg daal di dem nee na man it ma daal di dem sama kër nee na bi ma waaxoo dem sama kër bi ma àggee sama soxna laa fa fekk ndeket sama soxna sax fekk booba dafa tolloon diggante nee bi ma dikkee fekk naa ko muy toll ci matu bi mu dikkee dama mer ne ma yow yaa ngi ni nekk ci àll bi boobu ba léegi maa ngi nekk awma kenn ku mu yóbbu hôpital nga dikk bàyyi ma nii nee na bi ma demee daal di koy jël ne ko kon nan dem hôpital nee na ma jël oto bi yóbbu ko ci hôpital bi ma demee ñu ne ma demal nga yóbbu ko fële ma yóbbu ko fan nga koy rewle fi ñuy matte fi ñuy amee doom nee na ma daal di fay bàyyi sama numéro téléphone ne maa ngi dellu ci kër gi su amee doom na ngeen ma jël indi na ngeen ma woo téléphone ma jëw jël si na ma toog tuuti ab diir ñu woo ma téléphone nema sa jabar ji am na doom nee bi ma dikkee ñu ne ma demal fële ca soxna sa sële ngay séen demal boo demee moo doon réew sa jabar nee na waa ji nee na soxna si nee na ma dalal ko ci sama bureau ne ko toogal mu toog tiim taabal ji ma ne ko waaw sa soxna de am na doom macha allah wax yàlla dara jotu ko waaye nag xale bi dafa mal formation olo boog mu leer mooy xale bi dafa indaalewut ay bët bët yi dafa sëg waa ji nee na fi may toog soxna si fi mu toog ci taabal ji di wax nee na waa nee na ma jikk-jikk di jooy jooy yu métti soxna si nee na muy jooy muy jooy ma ne ko looy jooy mu ne ko ah man de damaa waaru sama soxna doom ji nga xam ne moom laa yaakaaroon mooy sama taaw mu dikk indaalewut ay bët loolu moom métti xoolal waa jooju nga xam ne ci ngoon gi la dem di kar gumba silmaxa di ko tooñ ndekete doomam bu juddoo du ay bët xam ngeen ne yàlla dafa fayul sëlmaxa si yàlla daf koo fayul moo tax tooñ dañ koy moytu tooñ du gàllaaj wala fi dañ koy wax sax tooñ du gàllaaj am na keneen ku ci des waa ji nee na ab étudiant la nee damay jàng takk sama jabar bàyyi ko ci kër gi nee na bi ma bàyyee sama jabar ci kër gi di jàng nee na sama jabar ma wàcc dikk fekk ko mu dugal góor ci kër gi nee bi ma ubbee bunt bi rek ma gis góor nekk ci kawam nee na waa ji jóg daan ma ah sa jabar moo ma woo ci sa kër de moom ma fi woo nee bi ma ko gisee ma ne asbuna laa nee na bi ma ne asbuna laa daan ne waa ji jógal demal bal naa la nee na ma woo sama jabar ma ne ko yow de jéggal naa la lool bal naa la ak léegi jëlal say bagage nga dem mbir mii de koo waxul du ko xam dinaa la sàng sutura duma ko nettali kenn demal jabar ji daal di jël ay bagages am dellu kër yaayam dem ci baayam waa ji nee na ma continuer sama jàng man étudiant boobu di jàng di jàng ba ci yàgg bi ma jàngee daal ba àggal sama jàng ma nekk nag ay droit koo xamante ni day àtte daal koo xamante ni moom mooy siis bi ñuy jox ay kayit yi muy atte nee na fi ma nekk di àtte ñu indil ma fa ay ay ay dossiers yoo xam benn waaye dafa rey nit. nee na bi ma dikkee may def enquête bi ndi waaja ndikkee ma daal di wax waaji ne ko waaw yow lan moo la jaral ci àdduna ngay rey nit nit ni bakkanam tedd ak ni mel lu tax ngay rey mu ne man kay dama dikk nu tuddati loo jotee nit ba di ko rey mu ne ko damaa dikk sama kër fekk sama jabar góor nekk ci kawam loola moo tax ma rey ko waa ji ne ko waa yow mënoo woon wax asbunallah nee na waa ji ci boppam jikki-jikki daal di xool waa ne ko waa yow yow dafa mel ni dama laa xam de mu ne ko waaw xam nga ma de man xam naa la de ndekete waajooju mu kone ne waa ji yore këyit yi di àtte ndekete moom la fekkoon ca jabaram mu dikk moom mu demaat yàlla fay ko loola yàlla fayaat ko moom it nattoo ko keneen dem ci jabaram moom bi mu dikkee mënta maîtriser mu rey waaja waa ji ne ko man de bu fekkoon këyit yi ci sama loxo rek la ajo dama lay baal na ma la baale woon bu njëkk waaye ginnaaw ajuwut ci man dinaa waxtaan ak bokki jàmbur luñ ci man ngir ñu dimbali la baal la bañ laa rey dinaa ko def nee na mu waxtaan ak bokk yi bokk yi ne ko déedéet mu koy den koy rey rek waa jooju noonu lañ ko def parey ko moo tax nit da ngay leble boo la tooñee yàlla day fayul nit ki ak tooñ xam nga ne ak tooñ mënta paase nit liggéey këram defar ko takk jabaram dugal ko ci biir yow nga am fitu ñëw ci jabari jàmbur fekk ko ci këram tëdd ak moom loolu dara dara dara jëru dara keneen bi ñuy tëjee waa ji nee na dama doon garder nee na ab gardien la boo xamante ni ci kaso yi lay garder damay def rek ku nu jàpp buñ ko indee xam ngeen boo demee ci réew naar yi wala Arabie Saoudite ak néew yi foofa dañuy àtte àtteef rey nee na ku nu jàpp ba àtte ba war rey rek man lan lay garder loo man maa lay garder. waa ji nee na ma toog di garder ku nu indi rek nangam nee ba benn waay boo xam dañ koo siise ba war koo rey bi ñu ko indee nee na may garder waajoo ji ndekete waa ji bi muy garder waajoo ji génn na ba daw te waa ji xam na ne bu dikkee fekkuñu fi ki nu war a rey moom la ñuy rey nee na ah ma ne man de jaaxle naa li fi ñu toll jaaxle dëgg laa def nee na ma wàcc ci suuf étage bi ma nekkoon ma wàcc ci suuf génn ci biti bi ma génnee ma gis fi ku ab dof ku xel mi matut nee na ma daal di koy jàpp indi ko yeew ko fan nu yeewoon waa ji war a rey nee na biñ dikkee ñu rey waa jooju nee na biñ ko reyee sama xel mépp maa ngi tiit ndax biñ dikkee ñoom xoolu danoo contourné ana kin waroon na rey ñu ne mi ngi nii rek ñu daal di koy indi ñu rey ko te fekk kan waroon na rey daw na ba dem. waaj ji nee na ma toog di xalaat loolu di xalaat xalaat ba benn bis ma wàcc nee na bi ma wàccee nii ma wàcc bi ma wàcc di ñibbi sama kër gis ay bandi yoo xam ne danoo kar benn waay ba kar ko ba rey ko nee na fi ko rey yor paaka ba rey ko nee na ma daw di leen jub ñu rey waa ji ba sànni paaka bi nee na bi ma dikkee ma xool paaka bi tiim waa ji nee na fi ma def noonu rek police fekk ma fa ne ma yow yaa rey waa ji ma ne leen reyuma ko ñu ne ma yaa ko rey dañ lay rey nee na indi ma fi nii rayee pour war maa rey ma ne leen dimbali leen moom bala ngeen ma rey man kii reyuma ko xam naa ne reyoon naa nit am na koo xamante ne reyam ci man la saboo waaye kii moom reyuma ko booba ba léegi nag maa ngi jàppoon ne bis dina ñëw ñu rey ma xam nga waajooju gis nga nam def ka mu dem wuutal ko fa moo tax moom itamit yàlla nattoo ko ñu dem ñu rey ko moo tax yàlla tooñ yi léegi da koy fayu nit ki buy tooñ na tooñ yàlla sax moo tane yàlla lu ne mën na koo baal xajoon na lu nekk waaye tooñ sa moroomam nit lu rëy rëy rëy dansé bu rëy la kenn euh, foofu kon la ñuy jeexale yaakaar naa kenn ci desoon waaye mën nañoo tëje foofu bàyyi ba beneen jamono ñu ñëwaat kii sax tamit mën nañ koo àggale ndax lu itteel la te nit ñi dañ koy def koo xamante ni moom it ab la day dawal oto nee na fi mu aw ci àll bi di dawal mu taseeg benn xale ba rey ko nee ko reyee daa continuer rek daw taxawul nee na ginnaaw bi nag mu yëg ci boppam feebar bu metti bu koy daal bu koy daane di ko daane nee na waa ji di ko contrôler di ko contrôler laaj ko ki médecin mu dem ci médecin bi laaj médecin bi ne ko lan moo lay def li man da xool naa gisuma mu ne ko man daal li ma jàpp ne moo ma koy damaa mas benn nit te nit kooku xamuma fu mu doon bi ma ko reyee damaa daw waa ji ne ko kon feebar boobu loolu la loolu moo dikkal mu ne ko li ngay def da ngay jéem a laaj ay bokkam ba gis leen boo leen gisee nga jox leen dëye wala nga baalu leen wala nangam waa jooju nee na damaa dem ba gis ay bokkam di laajte di laajte ba gis ay bokkam ne leen dama mas a rey benn xale boo xamante ni xaw ma kum doon dama bëgg ma jox leen dëye ngeen baal ma ñooñu ne ko baal na la ci xol bu sedd waaye ji nee na bi ko ñooñu ne baal na ci suba ga la gis feebar boobu tane ci yaramam kon tooñ lu doy waar la na ko ñëpp di moytu ci kemtulaay kàttam nun ko man rek nu moytu ko rawatina tooñ sa mbokkam jullit rawatina nag tooñ sa mbokkam koo xamante ni du julit ndax bu ëllëgee koo koy nga tooñ sawara nga koy fekk fay ko la nga ko doon tooñ te tooñ moom ëllëg yomal xiyaam mone yi fa am ñaari mone rek moo fa am mooy asanaat ak sayaat mooy lu baax maanaam dañuy jël sa lu baax faye ko ki nga tooñoon wala ñu jël sa lu bonam wékk la ko waaye seefaan yi amu dollar amu fa monnaie amu fa ñaari monnaie yooyu ñoo fa am mooy lu baax li nga defoon ak lu bon li ñu jël loola fay ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di taxawlu fii nag lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu lu ci jub ñu sante ko yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah